jërëjëf Cheikh Moussa Cissé jërëjëf Cheikh Souleymane Niang borom Touba Darou Midina Mboudaay Touba Darou Midina Mboudaay Touba Darou Midina Mboudaay bu kenn kenn bu bu kenn kenn mat ñaan di daaw laajte nañ ko mu ne dafa dem bitim réew moo tax teew si woon mais heure fekkee Sénégal daay bàyyi léppam quelle journée lan taf ko Xuraay séeréer Popenguine Cheikh Aliou Diouf ñu gën koo xam ci Cheikh Cotnef tey daa ngi koy fekk fii yëpp ci Sénégal daay ñëw tey ko fii ànd ak sama ñaan daaw laajte nañ ko mu ne dafa dem bitim réew moo tax teew si woon mais heure bu ko fekkee Sénégal daay bàyyi léppam jël journée lépp daf ko mu laay séeréer alhamdulillah alhamdulillah ma yanbaqi li jalali mulkihi wa azimi sultani wa usalli wa usallimu ala ala alihi wa ashabihi attayibina tahirin alxurril mayamin mbokki jullit yu tedd yi mbokki muday séril mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaare bu baax si bis bu tedd bii di sant yàlla di bési gërëbloo yàlla ci jagle bi nga xam ne moom la defal waa Mboudaye Sérère su ko defee xam ne moom la ñu dénk te mooy jàngale alquran ñu nekk ci ànd ko tutànk yi mu baaxoo jamono bu ne balaa ñuy tàmbali liggéey bi ñu jël ci ñenn ci waa ji ñu ubbil ñu alquran ñu jël kenn ci dongo yi wala ba ñaar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 زنين بالله زن زوي عليه دائرة زوء وقد ولاه عليه ولهنه وأدها له جهنم وساءت مسيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونشيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعشروه وتوقروه وتسبحه بكرة وأسيا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على النفس ومن أوفى بما غدا عليه الله فسنتيه أجرا وسيما سيقول لك مقلفون من الغرب استغلتنا أولنا وأعلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل سننتم أن لم ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزينت ذلك في قلوبكم وزننتم زن زوم وكنتم قوما برا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المقلبون إذا أنت لغته إلى المغانم لتأخذوها سرونا نذبحكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تذبحون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تعصدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمقلفين من الأغرب ستدعون إلى قوم نول بعث شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوه يطيعكم الله أجرا وسلام وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على لو ما خرجوا ولا على لو رجوا ورجوا ولا على المريض خرجوا ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم jërëjëf Aboubacar Sadikh jazakallahu xayran yal na yàlla barkeel yal na yàlla ubbile ci saaxiir ubbile ci baatin bismillah Ahmadou Bamba bismillah faj tafadal masu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 وهو بالنبق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأواه إلى عبدي ما أواه ما كذب الفؤاد ما راه أردت له على من يراه ولقد راه نزلة أخرى عند الشجرة المنتهى إنها جنة مأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما شاق البشر وما طغى لقد عرفنا آيات ربي الكبرى أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى علكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ديسى إن هي إله ما سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلى الذم وما تحوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورزقنا مولانا من الساعدين اللهم ربنا تغبا منا قبل القرآن وتجاوز عنا ما كان في التلاوة من سعي ونسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقدير أو تغيير أو زيادة أو نقصان أو أو ريب أو شك أو تعديل عن التلاوة أو كسل أو صوات أو سيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إدغام بغير بيان أو متن أو تمثيل أو همزة أو جمع الحسنى يا مولانا ارزقنا فضلا من قرأه ماديا ناقه ما الأداء والقلب واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبسارة واللبان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان والذين قبل المنايا عن نوم القفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن شان الكرولة ومن أكل الديدان وقيد وجوهنا يوم البحش وأهدق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وزقن ميزاننا بالمرسلات وشبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا الديان استجب دعاءنا بلاق التوراة وإنجيل والصبر والقرآن آتنا جميع ما سألناك به في سر والإعلان واشدنا من فضلك بواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد سائب السرية والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين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 وبالقبر يونسا وبالقيامة شفيعا وعلى الشراط نورا وإلى الجنة رفيعا وبين النار وبين النار شدوا وإجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإمامها بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم المكرمين اللهم إيدنا بهداية القرآن وعافنا به وكفر لنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا شرف والإحسان اللهم ارزقنا بكم عفو ونورا ولا وطا وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل وزن وصمدا وبكل سن مدى وبكل ربع محمدا وبكل شمل سنا اللهم فتى وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء الصوابا وبالجيم الجمالا وبالحاء حكمة وبالقاء قلانا وبالدال الدنوا وبالزاء الزقاء وبالراء الرحمة وبالزاء الزلفة وبالسين السناء وبالسين السفاء وبالصاد صدقا وبالداد دياء وبالتاء تارة وبالشاء الشفرا وبالعين علما وبالقين قنا وبالفاء فلا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم مريدة وبالنون نورا وبالواي وصلتها وبالله هدايتها وبالله من الف اللقاء وبالله نصرها وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أصحاب رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأنبياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أهلنا وعزن رائنا وأسات ستنا ومن مشارفنا قوش وإلى أراد من مؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات لا يؤمن ولا أجمعين آمه وإلى الجميع السابق خيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نذر دين واعظم من قدر المسلمين آمين آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة jërëjëf Cheikh Ahmed Bamba njàng mi rafet na yal barkeel la ci barkeeb Cheikh Souleymane Niane alhamdulilah ñoo ngi gërëmloo yàlla bu baax si njàng alquran ak ci leeral yi xam ne leer ko téereb yàlla bi ñoo ngi sant bu baax ci jagleel boobu nga xam ne Cheikh Souleymane Niane moo ñu ko jagleel alhamdulillah wa kafa wasalaatu wasalaamu ala muhammadin mustafa wa ala alihi al abrar wa ashaabihi al axyaar ورضي الله عنه عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ سليمان نيان أما بعد لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليعبدوه ولا يشرك به أحدا قال عز وجل fi muqami tanzilihi wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyahbudun wa hasihi libada la tasiu illa bi badi almarifatu billahi tabaraka wa taala qala subhanahu wa taala til hadis alqudsi taarifuni qabla an taabudun fa in lam taarifuni fa kayfa taabudun wal insaanu kaana aarifan bi rabbi qaala subhaanahu wa taala fi muqami tanzilihi alastu bi rabbikum qaalu bala sahidna aya tadullu ala anna al insanu lam yakun jaahilan bi rabbi fi zalika al aalam wa innama aradtu udbu fi aalami nnaasut أتى نسي ربه الذي كان يعرفه والله لم يترك سدا يقوس في البحر الجهل والهلاك بل مد إليه يدي رأفة ورحمة لأنه رؤوف رحيم لذا أرسل الله إليه رسولا ليرشده إلى طريق الهداية ويذكره ولم يمل في تبليغ ما أمره ربه بتبليغه bal sammaru an saaqi jiddi wa hasmi wa asa dawru nabiyin alasi laaha bi rusuli sallallahu alayhi wa sallam ala al insan lam yanqatia wa innama warasa al ulama anu qala annabi sallallahu alayhi wa sallam al ulama warasatu al anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama yuwarisu ilman wa isa laxasna nara anna al insana la budda lahu min mursidin yursiduhu wa min dimni haulaa'i al-mursadin wal-murabbina allazi laysa lahu himmatun siwa tarbiyati al-insan wa irsaduhu wa isaluhu ila hadrati rabbihi jalla wa ala الشيخ أحمد بامبا رضي الله عنه الذي أورثه الله الأنبياء ورسله وكانت همته رضي الله عنه كهمة عليه وسلم في تربية الإنسان wa tasfiya qalbi wa taraqi ruuxi ila hadratin alqudsi dañ daan dajee di yégante ci yàlla dañ daan dajee di nammante seeni jaas mooy ngay tudd laa ilaha illallah may tudd laa ilaha illallah yaa ngi namm sama jaas maa ngi namm sa jaas axlu tasawuf loolu dafa bokk seen jotaay bi kon madarasa la boo xam ne ku si génn rek dangaa war a baax dangaa war a set dangaa war a sell keñaan dafa war a denc yow coxor dafa war a denc yow bëgg daraja dafa war a denc yow rëy dafa bara dem ci yow yooyu yëpp tawat la yoo xam ne ci xol lay nekk la tax ñuy wuti sëriñ loolu la du lenn lu muy yow ayib bi nekk ci yow aari bi dañ ko wax ne waaw kan mooy seexul murabbi mu ne seexul murabbi man faraqa fi nafsihi mooy ku pare ci si ci benn ayib kooku mooy cheikhul murabbi ku pare sa bopp ci bépp ayib kooku mooy cheikhul murabbi parce que soo parewut sa bopp woo di woo maqaamay cheikhul murabbi ku ñëw tawat bi nekk ci yow mën nga ko def mën nga ko wàll loolu la ñuy bañ mu ne man faraqa fi nafsihi mooy ku pare ci boppam imaamul junne ju nekk lañ mooy tasu mu ne attasu kulluhu axlaaqun fa man saada alika bi axlaaqin mu ne saada alika bi tasawuf tasawuf léppam jikko la képp ku dooleeku si jikko baax sa tasawuf mu waaye sa jikko yu baax feeg mu ngi effacé wu rek sa tosu mu ngi wàññi da ngay dem di dellu di delluwaat ba suma radad naa asfala saafiliin te laqad xalaqna al na fi ahsani sa ku fanaaw ci yàlla fanaaw ci yonent bi te ku fanaaw ci yonent bi doon yonent bi dara du ko dindi yonent du jëmm yonent du xeet yonent du askan yonent du maqaama la mooy ki ñu yónne ak liñ ko yónni loolu mooy diggante sëriñ ak taalibe al a warasatul anbiyaa sa nga ñaar mu rek moo tax kuy laaj ci yonentu demal nga wëri bërëb xam-xam yi ñoo fi nekk ay yonentu ñoo fi toog ay yonentu ña toog seen loolu ñoom la ñu tuddee asaab yi asaab yi moo ñu ànd moom ci kol bu set wecc ci lu naxante ci lu dul werante waaye ñi jàll bari wute asaab yi bari nañ waaye ñi jàll bari wut soobu ci yàlla yomb na waaye yegg yombul sax ci yàlla yombul Cheikh Souleymane Niane mii njëlbeenam ba fi mu ku ko xam xam ko ci bëgg yàlla ku ko xam-xam xil ko ci jaamu yàlla xeebu kenn kooku mooy yegg ci yàlla rek jeex ci yàlla takk yore kaddu piyeb yàlla bi doo si yam doon joxe démb su ko joxe waat tey dafa mel ni tey dafa doog a wàcc kooku mooy mat kooku mooy kaamilul asri du moom maqaamay piyeb bi la kooku ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yashabu cheikhan arifan masalik ga mursid muhin waxoon loolu moo ñu dal tànnal sëriñ boo xam ne bu xam yàlla la yegg ci yàlla mën yegg yeggale ci yàlla nga sóobu ci moom moo yegg ci yàlla yeggale la ci yàlla waaye nag yu jaahidu nafsa li rabbil alamin waaye nag fexeel jihaad ak sa bakkan parce que am na loo xam ne sëriñ bi du la ko defal mbokk xam nga médecin bi nga ñëw jox ko sa bopp mu xool la ne la yow sa tawat lii ak lii la comprimé nangam ak nangam day jël loolu du la ko defal yaa koy defal sa bopp sëriñ bi soo ñëwee jox ko sa bopp laa ilaha illallah la lay jox mooy comprimé bi demel nga taxoog laa ilaha illallah soo taxoog laa ilaha illallah nag lu mat 40 ans te sa tawat jàng sa tawatu jàngaro tawatu xol saafaru wallahi sëriñ bi wàccoon nag yow yow yaa des xam nga imaam euh, imaam al-Xasaali wala nga jël sëriñ Abdul Qaadir Jilaani 40 la am àgg ci yàlla 40 ans yow nga sóobu ci yàlla 40 ans yow ñu la ko ñeenti weer nga sóobu ci yàlla yegg dëgg-dëgg 40 ans yi Sëñ Abdou Khari Jeylaani suñ la ko defalee ñeenti weer dëgg-dëgg xam war ngaa xam ne ah mayu démb ya ak mayu tey wuute waaye nag ku sàggan la nga yoroon rëcc la parce que lu lu yomb rek nga ko sàggane alal su yombee nit daf koy foye waaye ki ko liggéey daj ci lu ne bu am alal ji daf koo tarbiya boo ko gisee moo gën a nërmalu ci ci kaw gis nga ku liggéey liggéey liggéey ñaq bu am alal soo ko gisee taalibe lay doon dafay am yërmande parce que lim daj ci laata buy daj am alal moo tax nit dafay tarbiyu alal bu am alal doon taalib nit dafay tarbiyu yàlla sëriñ seexul murabbi bi tarbiyu seexul murabbi ba mu ci doon ko alal pourtant xaalis valeur bi mu am yëpp ñun ñoo ko jox rek sëriñ bi tamit daraja ji mu am taalibe yëpp ko jox rek xam nga yunintu soo ko bëggee xam xoolal saxaaba yi rek yunintu saxaaba yi ñoo koy feeñal yunintu bi lu mu indi loolu waa Màkka du laa ilaha illallah Cheikh Souleymane Niane lu mu indil waa Mboudaay du laa ilaha illallah yonent bi fu mu fekkoon màkk du si lëndëm Cheikh Souleymane Niane fu fekk waa Mboudaay du si lëndëm kon yonentu lan la yonentu mooy ko fekkoon nit ñi réer mu gindi leen réer yi woon gindiwuñu yonentu mooy ku jox laa ilaha la xaalam yëpp laa ilaha illallah la taqoog meloog yàlla boo taqoog meloog yàlla bu taqoog meloog yàlla ba far doon ko kon kay alhamdulillah loolu lañ doon ñaan yàlla defal nañu ko gis nga tasawufu Cheikh Ahmad Bamba dafa wax ni wa xaasilu wa xaasilu tasawuf bi aalimu amil bi xilmihi xaqiqatan walam yamil wa saara safiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al afkaari muqattihan li rabi min al basar musawiyan dinaarul ayni bil madar Cheikh Ahmad Bamba dafa wax ne dëgg-dëgg nit ci tasawuf dafay nekk aalim moo tax drapeau bi njambee ko yokk fii ngay fekk xale bu juddu tey ci péeb yàlla bi màgg tey ci péeb yàlla bi fii nga koy fekk mu ne nit yi tasawuf dafay nekk aalim da ngay doon borom xam-xam waaye en même temps ngay pratiquer ci xam-xam aalim mais amil bi ilmihi xaqiqatan nag sa dëgg-dëgg walam yemel te du jéng nee na fa saara safiyan min al aqdaari nga gis xol ba set wécc ci lépp ayib mun xali al qatar min al qatar mustawiyan dinaaru ayni bil madar kal ardi yurma foqa kullu qabi wala turi min badda ila ila al malih yabtaw al karim wal layim wal bar wal haasi wa tastayimu nga gis xol ba fees ak ay afkaar léeg nga daje góor yàlla yoo xam ne dañoo fees dell billahi soo leen fekkee seen ruq dañu toog di waxtu toog di waxtu parce que liñ jor dafa fees dell ba mënuñu ko ñàkk julli te gis kuñ ko jox dañuy toog di wax ñu ne waa ji dof na du dof de dof bu dul dóore dof bu dul saaga dof bu dul sàcc dox boo xam ne mu ngi ci di doxal jamonoom bii doxal mbiru yàlla suñ la ne dox na neex na xam ngeen ne fii ay dof tooguñ fi de waaye njëlbeen bi dof lañ ko tudde woon te moo meññ lii loolu sant yàlla kon lay mel Cheikh mu ne dafay yor dafay yor jikkoy niir niir mu ne niir bi surité fii booy sotti ndoxam bi bàyyiwut tooli kenn ki gëm yàlla ki gëmul yàlla yéeféet lay sotti sufiyanke kooku kooku mooy sufiyanke sufiyanke xàmmewut ku gëm yàlla xàmmewut ku weddi yàlla xàmmewut gumba bi xàmmewut laago bi ñëpp la def muy bokk kooku la ñu tuddee sufiyanke kooku moo yegg ci yàlla dëkk gis meloog yàlla yi sa nga ñaan mu ne ma yàlla moo moo rafet ci ay melo waaye moo am kattan ci jëmmum waaye moom mot ci jëfam ak waxam yàlla moomu laa leen di dénk sax leen ci suy neex na nekk yàlla suy naqari na nekk yàlla te yàlla naqari amu yàlla moom jeex la rek te ku jeex rek bànneex yi mooy sar di sar di sar ba far soppeeku moom kooku nag pied na boo xamante ni foofu lañuy ñuy mu ne ñaareel ba dafay yor jikkoy xaj wala ñu tuddee jikkoy dawkat bu dee ci teggin ñu tuddee ko dawkat bi mu ne dawkat bi soo ko engagé mu daw jublu si la nee na borom xaj bi su waxee nga gis mu tëddaat gis nga taalibe su sëriñam waxee na toog su waxee na taxaw su waxee waxal waxal su ne demal demal yoral jikkooy dawkat boobu mu ne en même dafay yor jikkooy janab mu ne janab su gisee lu mu bëgg doo wéq moo ci waay dina ko mos mu ne ci tus gis nga taalibe su bëggee yàlla kenn mënta dox diggante moo am borom ñaata taalibe ñoo fi jëkk ci jaasi rey seen bàyyi ak seen yaay waxuma reyub jaasi rey ci baatu laa ilaha illallah du jeex a ah, am na yéeféer yoo xamante ni jullit ñi jaasi lañ jël dëqale seen baat te ñoo ñooy seen wajjur pourtant ne l'islam li ñuy bañ tey li ñuy bañ tey topp gi ñuy bañ pourtant moo moo moo moo suuxat garabu l'islam yonent bi kan moo ko suuxat du aboubacar aboubacar bi muy dem makka bi muy jógee ko makka di dem madinatu munawara dafaa bàyyi am mu doon gumba baayam xuwaafa tu tuddoon bàyyi fa ay ay ay xale jigéen dafa bàyyi xoofa xam nga lu doon wax Aboubacar nax na suma doom ji yóbbu na ko Makka danaa torop loolu la doon wax billaay li ñuy wax tey démb démbay tey waaye naaju démb nag footu démb naaju tey footu tey kooku loolu la jàngale gis nga mu ne Aboubacar dem na madinatu mun na war a ànd ak yonti yàlla yonti bi salaa ko waaw dem na de Aboubacar Aboubacar ak yonentu Aboubacar ak yonentu jël kon jox yonentu bu yonentu xëy doon lim doon kon kay topp gi wax dëgg yàlla foofu la mu ne ñetteel ba dafay yor jikkoy sën xam nga sën lépp luñ génne ci kër gi ci tilim rek foofu lañ koy sànni waaye bàyyi ko ab diir nga ñëw fekk mu tajjil yàlla ko soppi ko boppam aarifu billaahi kum jaxasoo weer ñaari weer loolu la dem la dem mu soppi la leer du dëgg ñun jaxasoo ñu moom bu ñu ñëw dañoo leen di am na ñoo xam ne sax une semaine defuñ ko fi am na ñoo xam ne ñaari fan ñetti fan mu soppi leen muy moom am na ñoo xam ne quatre mois trois mois extra maam Cheikh mu ne ma nag am na lu ko tënk sën am na lu ko tënk mu soppi ko waaw ne ko loolu may lan mu ne ma kaw si dee gaaw ci soppi ko ak mbuus ak biteel xotti biteel xotti biteel mën na yàgg si sënt bi soppi mu ne ma am na taalib yoo xam ne sëriñ si mënu si ñoom tos wax wax bàyyi rek waaw ñu moom noo leen di sopp mukk ala kulli xaal loolu dafay am parce que woote bi lu xam ne du jàll yàlla te xam ngeen ne waa aljana waa safara ah war nañoo jaxasoo waxtaan nag parce que waa aljana waa safara la ñuy dundee de wax dëgg yàlla ñoo am benn jafe-jafe war nañoo toog waxtaan parce que teraange aljana ji yëpp safara lay bàyyi billahi la si laa ilaha illa te loolay dëgg mu ne ba si topp dafay yor jikkoy suuf gis nga suuf si ku baax ku bon ku am ngërmande yàlla ku amul màndi yàlla ñëpp ciy dox waaye moom mu ngi ne dégg rek gis nga xaarifu billaay su motee ci yàlla dana jaxasoo koo xam ne du dara ci saahir yàlla dana ko dénk soxna soo xam ne lu bon lu ne la koy wax waaye mu ne tekk rek sa ñaar moo neex njàngale mu ne léeg-léeg dañuy indi kaas bu tàng bi mu ne bu ñu indee kaas bu tàng bi indil kaas bu sedd bi kaas bu tàng bi mooy suñ ñëwee naan nee na nee noppale loolu mooy kaas bi gis nga mu ne safara safara du ko fay mukk déedéet safara ndox moo koy fay gis nga ku ñëw ci yow indil la jalaal indil ko jamaal góor ak jigéen ñooy ànd meññeef am góor ak jigéen suñu amul tajaliyaat yàlla yi du dox mais góor yi kese dara du sotti. jigéen ñi kese dara du sotti kon jalaal ak jamaal ñooy ñëw asamaan ak suuf foog ñu am te xam naa ne foofu moom sax dañ fa waroon na dugg a ah que asamaan yi gars yi di wax ak suuf yi di wax il foog ñu leeral la ko jàmm yàlla yi ak guddi yeeg bëccëg suba yeeg ngoon yeeg waxtu juróom yi ah arasu yàlla bi ban aras bi ban aras yonent bi rañaan na jógee na Makka dem Jérusalem jógee fa war alburaq xuus juróom-ñaari asamaan dem la mu jël la mu jël te sa yonent yàlla Moussa Moussa ne ko dellu foofu ay giij la yoo xam ne a ah, aarif bi laay xam ne li muy saf ku ci yegg bokkoo ci te dafa am wax yoo xam ne waxi góor ñi la góor ñee ko moom dafa am wax yoo xam ne waxi jigéen ñi jigéen ñee ko moom ñun nag waxi jigéen ñi doyatul ñu waxi góor ñee ñu doy kooku moo ñu indi sang ñaan maam Cheikh mu ne ma yow xam-xam dégg naa doyatul la ci dara ko wax nga dëgg de gis naa rek moom ci doy billahi lasi laa ilaha illa fa laysa yura rahmaana ilaa bi xëy kenn du xam yàlla lu nga gis yàlla lépp loo ne xam ko te gisoo ko xam nga wirut xam naa Cheikh Souleymane ñaan te gisoo sang ñaan déet nel nettali nañ ma meloog Cheikh Souleymane ñaan loola gën wala dégg naa ko waaye xam-xam gis rek ma koy may fa laysa yura rahmaana ilaa bi xëy ni ilaa bi aynihi gisee yàlla sangi ñaan ah xaw dañoo xaabaabal waaye géej la boo xam ne sangi ñaan daf ñuy wax ne boo demee ci mëddat yi yàlla yi mëddat yi aay yi dañuy wàcc rek naan wax ma wax ma wax ma gis nga yonent billahi lesi laa ilaha illa huwa wala Cheikh Souleymane ñaan mii dafay toog ci maqaama yonentu aay yi de wàcc nam doon wàcce ci yonent borom daaru wax na ko aaye nam doon wàcce ci yonent sallallahu alayhi wasallam noonu lay wàcce te lu wàcc du ma ko téye dama koy joxe parce que moom alal yuntu alali saxaaba yi saxaaba yee ko moom daf koy joxe force lu ko may waa ji jëlee ko fi su ko jëlee indiwaat keneen mu ni ma bureau bureau wala yàlla yi Cheikh Souleymane Niane mu ne ma bureau wala yàlla yi tëjuñu maa nga seen ba yonent yàlla Souleymane toogoon di séddale toog naa ci yàlla jox na ma caabiyam joxoon yonent yàlla Souleymane arfan bi arfan nguur yonent yàlla Souleymane feeñ na ma ci kaw si ah loolu loolu yaakaar loolu waxi neen déet waaye tàmbali na kon alhamdulilah ñu ngi ndokkeel ñëpp ah, ah sang bi ñun li ñuy wax yëpp yaa ñu ko tëbb eh, Cheikh Adama Cissé ñoo ngi lay ndokkeel bu ma bu may dégg mu jàngalee xissay Cheikh Moussa ma ne kii muharriq la kii dafa waroon a am bindkat bu toog si ronam rek di bind pour ëllëg ku neex njàngale si Cheikh sax yàlla yàlla yàgg na fi te wéral ci Euh, jëmm ju baax ji naa ne ci Cheikh Souleymane Niane jaaree ko ci si jëmm ju tedd ji dafay bind ay abyaat def ko sa baay ju baax jooju tedd jooju muy muy muy Cheikh Moussa Cissé mu bind ci ay abyaat yu rafet mooy oustaz Gallo mii nga xam ne taalibe la ci kër gi Cheikh Souleymane Niane ku rafet xalima la mu ne unaadi bi sayqin ka sa saqaana fa nil naa bi fatin mubinu radina mu ne unaadi maa ngi woo bi sayqin si sëriñ boo xam ne ka usan ca kaasam ya saqaana lañ naa ne te bañ naa ne fal nil naa lañ ambi di fàttiñ ci mu bi nun gu bër ne maa ngi woo sëriñ boo xam ne ah ci kaasam ya ci lañ naanee te bañ naa ne am nañ fattu oustaz Gallo moo ko wax Cheikh Souleymane mu ne mu rabbin la yarekat la mu raqin la ku doon yéegee la mu rabbin mu raqin kon nag fasiiroo kon fasiiroo mu ne daw leen dem daaru tanaa la kon da ngeen am bi sirril masnooni sirrul masnooni boo demee man Ahmad Bamba si jawat mu ngi ko fay réer sirrul masnoon moo taxoon góor yàlla yi laxas mu ne tanaa la bi sirril masnooni kasaf naa loolu la wax borom daal te yàlla mu ne fafiru ilallah gis nga daw leen jëm ci yàlla gaa yi ne mooy jàkk ja gaa yi ne mooy jumaa ja ma ne yàlla daf ne daw leen jëm ci man ak ku daw dem ci jàkk ja nag war ngaa gis yàlla comme que ma daw leen ñëw si man koo ñëwee si jàkk war ngaa gis yàlla ma ne du loolu Cheikh Souleymane Niane mënuñu fafiru ila allah mooy fafiru ila cheikhul marabbi mooy daw leen jëm ci cheikhul marabbi pour mu delloo leen seen bopp moo wax ne taqiyun mu ne borom daaru ku ragal yàlla la karimun ku tedd la saqiyun ku tabe la ka wadlin ba mel ni waani mu ne wafiyun fa tuuba liman saara so mu ne dëgg-dëgg texe ñeel na ko dem siyaare ji borom daaru ndax siyaare ziyaada lay dolleeku moom loolu la wax ci borom daal mu ne xalimun ku lewet la fasixun ku ñëw la latifun ku latifun ku ñeewante wala jarixun ku ñëwoon la fa xaasa lahum rieka baxri salak na mu ne borom daaru xalim la woon ku xamoon la borom xam-xam la woon waaye latif la ku amoon ñëwante la si mbindeef yi waaye ku ñëwoon la muqiisun mu ne moo ñu xettali kafaanaa fegal nañu na ak ak cànkute wa jaxlan ak réer borom daal fegal nañu cànkute loolu ñoom Cheikh Souleymane ñaana ngi nii borom daaru fegar nañu réer fegar nañu sànq hakimun bi xawli nee na ku xereñ la woon ci ay waxam xereñ ci waxam yooyu xam naa ne dana danañ ci yegg sëñ aada indi ñu ci lu am solo hakimun bi xawli ku xereñ la woon ci ay wax wa fex lin xadaana te jëfam da daan gindee mu ne su may wax da leen ma déglu waaye su ngeen su may jëf leen ma wax parce que jëfam dafay gindee waxam daf lay delloo ci xadara kii loolu la wax ci borom daaru kon muqiisun kafaana dalaalan wa jahlan xakimun bi qawlin wa fi'lin hadaana wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa aqiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum asalaam wa rahmatullah as kaddu yu passaana jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah nu nuyu ko door a jàll ci sëñ bu mag moom seex bi toog xanaa mbir moo xam boo koy wax ñi ñi mu yoon ñi ngi toog defe naa loolu kenn du ko sos bi nu àggee ba ca kër ga ci ci néeg bi ci néegu Cheikh Moussa bi ñu tabax soo gis yegg kaw mbaar mbaar mu rëy moo xam ne jën yi benn mu ne mat na bëri ko taxawee ma daal di egsi rek gis ko sarsara sama sama sa dem ci ma ni sarsara fii ku fi ku fi jàng sarsara mel nga ne ku demal sarsara ga sëñ Touba nekk mu yëkkati sa sara keroog laa ko jëkk yëkkati waaye keroog la sëñ Cheikh Moussa ni ñokket samp coñca yi ñu téye ko mu jóg Cheikh su lay ngi toog gis nga ko noonu kii dañu koy njukkal waaye mënuñu koo fay muy ñokket ba samp ni ñu jox ko piliyaan bi mu toog ci mu ne waawaaw waaw sama sëriñ ba de loolu la wax nee na ñi ma fekk fii ci gànnaar jànkonteeg sàcc yeeg addukalpe yeeg doj yeeg géej gi ba yegg si fii ci man tàggoo nañu ay bàkkaar waaye sëñ Tuubaa de nit ñi xamuñu ko gëmuñu ko ak bëgg dong lañ ci am lii de Cheikh Moussa Taw Cheikh Cheikh Cheikh la ngi toog bi ñu génne nag ci gàttal rek fekk sëñ Bay Jaay toog sëñ Bay Sekk ngi toog sëñ Daam Jaay ñu toog ci biti ma génne ñu toll julli tam saan ba noppi ma génne ñu ne ma am nga chance kii ñaar fukki fan ak juróom a ngi waxut nga yegg si mu ne ñokkat di wax am nga xaar Cheikh Souley ni ko nag noppi naa ci moom mu liggéey liggéey bi dong laaj waa daaru waa daaru mu ci ca la bokk jàng na li mu war xam li mu a xam lii dong nga ko desoon noppi naa ci moom mu ne ko nag Cheikh Moussa moo lay jox bi liggéey keroog ba nga xamee ni noppi na ci man ci ci tëkku saan si wax naa man ba yàgg mu ne coow li may dégg na kaaru lu ma ne ko foofa de ndeyu Abdoulaye Wade daal la ñu bëgg a nangu nguur ga ci euh, Abdou Diouf jox ko ko mu ni ma lu tee defuñu ko ma muuma mu yóbbu foo xam ne doxul juróom-ñaar fukki at keroog te laa jógee man man dindi dindi dindi barab bu tooy gant bu tooy neexuma ma samp fa beneen xalaatuma dootuma samp simpi duma ma jàpp bay dootuma fal foli moo tax kii rek laa Cheikh Souleye képp donc rek laa am fasi maa ngi ma àndal nag ndax ku ñëwee dañu lay dégg moo tax ndeysaan ba ma fa jógee sama yoor yoor sama takkusaani altine joojee ak sama talaatay yoor yoor boobee ca ba dix heures bi ne teg ba yàgg mu ne am nga masaali wallahi alxasim masaali bu dinaa am na am na juróom juróom juróom-ñaari wayu def dinaa ko ci leeral ba ma ma ne ma ma ne ko déedéet mu ne boo demee wut ko ci kii yu ni dootul woon wax bi ma ñibbisee bala ma am ñetti fan am naa masaali mi ngi nii ma téye fii mu ne boo demee ren ba dee dugg ma coow li liggéeyoo xarit boo mosam dana la bàyyi mbokk moo mosam dana la bàyyi ba mu des yow képp xam nga la lu taxam ma ne nii mënumaa wax mu ne ma dañu dëgguwul billaahi xasi ma la si laa ilaaha illa Cheikh su léegi boobu rek seetaan maag moom bi mu waxee ba noppi la ci génn moom boobu moo tax nun ak ak ak taalibe war nañ ko seetaan bu baax Cheikh su lay nekk naag Cheikh Moussa ba dem baatu indi naa la ko mu ngi nii ak diw si naa rek nu war a tàggoo kër ga la ma la wax rek moo ci ñaar yi la ko fi wax diggante bi li te lépp Cheikh Moussa waxal na bur yàlla laa ilaaha illallah bur yàlla laa ilaaha illallah te yàlla laa ilaaha illallah yàlla buur bi kenn la képp koy àndal la yàlla taa laa ilaha illallah bur bi yàlla kenn la képp koy àndal na yàlla taa laa ilaha illallah allahu laa ilaha illallah ci yàlla laa ilaha waxtu wee gàtt kon ñu bàyyi waxtu wee gàtt waaw dañu jëkkantee moom rek Cheikh Moussa ne ko lebal kenn man maa ngi dégg waaye Cheikh si rek nga boof rek allahu akbar naa bañ a sori foofu sax bala maa ba mu ne xaw ma ma lebal ko la nga génn ca ëpp ca bunt ba yeew ko fa dem waaye ku ma ko lebal nga yafal ko course boo dem jël ko dem bi lay ma la si lii la ma Cheikh Moussa wax man kon nan laa mën a def lu dul nii ak ku nangu di dégg li may wax te nangu ko da nga xam ne kii dañ koy njukkal si waaye kenn mënu koo fay moom Cheikh Souleymane ñii dañuy def fekk fañ dëkk lebal leen bàyyi leen ni dem leen commerce ji na daj réew mi kaw man ma fekk ko fii mu mu lebal ma ni ma demal demal liggéey di nga ko kon ñaar yi benn lañu waaye nag nu wóote nañ tuuti ci wet waaye yëpp nag lu ci mën am delloo njukkal rek delloo njukkal rek maa ngi ñëw ci xat mu bi de waaw waaw waaye loolu daa jata jara leeral moo tax wëllëre ginnaaw lay féete Cheikh Souley gàmm gi bi muy bi mu nekkee ay mbaar yu bant fii la tàmbali di ma jox ko maanaam xatmu bi ma koy xatmu moo tax nag xale yi kenn ku ne di ko jàng ñoom di di ko tari te man mënu ma ko tari waaye teewul dinañ ko def ma noppi mu jox ma ngir aar barkeel ko nga kóllëre ginnaaw lay féete nan roy sëriñ si jàpp te bàyyi xam nga ñoom ñoom tëlu bi biñ njëkkaam sax duñ ko bàyyi Cheikh Cheikh Souley fii ci mbudaay moom xaw ma fi dara sama yoon new ci waaye fii ca ci réew mi maa taawam maa njëkk a jébbalu ci Cheikh ci taaw ci réew mi nag waxuma mu daay di waxuma daal fii si fii bi laa wax li nga ko noonu bi ñu ci noppee tam bi mu noppee ci man bi ma yóbboo ci Cheikh Moussa man mii la Cheikh Moussa mujj a seexal na na mën naa koy wax ñu ne ah moo da koy yëkkati koo rek gis nga ko noonu Cheikh Moussa bis bi talaata suñu talaata jooju ba dix heures bi mu ne yewee nu ñëw yenn mu daay te ba ñu julli timis mu yeewu ma ma ñibbi Dakar talaata jooju bi mu diyërtee la Cheikh Moussa wàccu liggéey ku fi xam keneen ku fi jox leen ndigal wax day leer binduma ko fenn dama koy yëg di ko wax damaa xam ne ay bis gii rek la te man ba ma ñëwee waxatu woon te bi ma ñëwee la wax te bi ma demee daal tëddaat lii rek a ma xam ne talaata ak moroom ja gisuma ku ma fi ku ma fi jiituwaat ba ñëwaat mu mu mu mu seexalaat la fi. kon daanaka fii bu ñu génnee waa Goudaye ak waa waa tund wi daal waa Saloum bu ñu leen génnee man mii man mii dong dong maa fi koo xam ne kii maa gis Cheikh mu nag bu weesoo ginnaaw waa Mbour waa Mbour weer wuñ ko gis. waaye lu 31 décembre 92 la ma cheikh bi jox leer gi mi ngi ma mi ngi ma yanu ba ca kaw dóor fi suuf xar saab xol set dindi lumb wu wu ñuul woowu ci nekkan ci 1994 ma ñog ñogi tuuti rek mille mille neuf cent quatre-vingt-quinze le 8 mars ci laa jëkk a sant moo tax mars boobu coloré googu ma jàpp ko kon le 2 mars bi ñëw insha allah diggante ma koor gi juróom fukki fan la waaye danaa ko fi xajale kóllëre ga rek bañ a bañ bañ a wet bis boobu laa am léegi nag lu mu xat-xat ma koy dugal foofa kon ne ne ko ñëpp dégg yëgle gu ma ko kenn waaye ginnaaw bis bii bu amee soo ko fi yëglewul foo ko yëgleeti moo tax ma ne nag ma dëkkante ni le 2 mars ku ko fi jàpp dañ koy bokk de waaye man du ma bàyyi le 2 mars waaw 1924 euh, euh, le 2 mars 24 ah 2024 waaw maa ngi jël le le 31 décembre 92 ba 2024 am na fi xale yu ma doon téye gis woon bi may siyaar ma leen wax leen booba fu ngeen toll 92 ñu ne juddoogul man ne mi ngi nekk ci 30 ans léegi ñu ne booba loo am mu ne wente e ma ne ngeen di ma téye fii gis nga ko noonu ñun ñu ñu ngi jébbul ñu ngi jébbul gis nga ko kon taraan gis nga 92 ba ba ba mille 2024 waaw 2024 boo ko seetee lépp noonu la tool kon maa ngi ñëw ci xatmu bi ci gàttal loolu di ko xamal nit ñi da ciy baax lool ñu xam ni kii dañu koy foy dama bëgg rek ñu di ko foy waaye jóge fi naan Cheikh Moussa li la wax gis nga kee mënu ko bëtt ñëw ci Cheikh Moussa bët Cheikh su lay ne ne ne bëri naan Cheikh na dugg àll bi naan Cheikh Moussa nee na bàyyi leen li ngeen di def kii lañu war a foy waaw buntu baa nga ne waatun buyutu min abwaabiha jaare leen ci moom mu jaare ci Cheikh Adama ñoom Cheikh Adama ñoom dem te seen ñoo xam ah waaye Cheikh Cheikh su lay defar la sa digganteeg Cheikh su lay ñetti Cheikh yu mu defar jaar bi nga dikk ni bëri ni Cheikh Moussa doo xam looy wax da ngay jaxasee dem rek nan bàyyi loolu kon nag yal na ni yàlla gërëm bisimilah mu ñëw jël kaamil bi nag ka alquran nag ñaan gaa ngi nii nañ ko déglu yett noo nga ne ci alquran mën koo jàng jàngal ko sa bopp mënoo ko nga jàngalu ko neexal xol bu koy jàng mënoo ko buñ koy jàng nga ñëw déglu lii rek mooy alquran kenn ci ëpp ci morom bi baqara ba naas kon lan ngeen yàlla nangu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 bismillahi rahmaani rahiim qul huwallaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad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 إلهي ناس من سر الوسواس الخناس التي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أو مد أو همسة أو جسم أو إلى بخير مكان فاكتب منا على التمام والكمال والمؤسس من كل دلال فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا لا تؤاخذنا يا مولانا سقنا فضل من خلوهم وأدين حق وما والقلب والشان وهب لنا به الخير والسعادة والبسالة والأمان ولا تخدمنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان والنبينا أن قبل المنايا فنم قلت وكسان أمنا من عذاب القبر ومسال المنكر المنكر ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وتقاونا من النيران ويمن كتابنا ويسن حسابنا وساق الميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوارا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بالحياة ديانا طيبنا بحق التوريد والإنجيل والصبر والفرقان أهدنا جميع ما سألناك في سر والإعلان وسرنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السريعة والبرهان برحمتك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين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 اللهم اجعل القران لنا في الدنيا خليلا وفي القبر منشا وفي القيامه سفيا وعلى صراط نورا والى الجنه رفيقا وبيننا وبيننا رشدا وايجابا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اجنا بهدايه القران وافنا بهدايه القران ونجنا من النيران بكرامه القران وادخلنا الجنة بصفاء القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفنا نصينا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإنسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القران علاوه وبكل كلمه كرامه وبكل ايه سعاده وبكل سوره سلامه وبكل جسم جسد وبكل حزب حسنه وبكل نسب نهمه وبكل رب ربه وبكل سمن سنه اللهم ارزقنا بالالف والوطن وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمه وبالخاء خلانا وبالدال ذلا وبالسالس سكان وبالراء رحمه وبزاد صفة وبسين سنات وبزاد صدقا وبالضاء ديان وبالضاء طاهرا وبزاد صبرا وبالعين هلما وبالعين هلما وبالخير خنان والفاء فلا وبالقاف قربة وبالقاف قربة وبالقاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موسة وبالنون نورا وبالواي وصلة وبالله هداية وباللام الألف لقاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح سابر رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وآبائهم وأمهاتنا وأمهاتهم وإخواننا وإخوانهم واصدقائنا واصدقائهم واساتذتنا واساتذتهم ومسايقنا ومسايقهم خاصه والى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اجمعين عامه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 وهنا على سنته وأمنا على ملته وجعلنا من أهل الثبات والسنة في سنته واسقنا من حوضك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب خراجنا لمن جعلنا سببا لاجتماعنا واتيه في القران في القبر الصوت الواسع والهجة البالغة والقول الثابتة ونور المتامين ونور في لول المسلم وجه في الارض عن جنبيهم وارحمهم واغفر لهم ولوالديهم يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم آتي بالقرآن اللمنة يوم الفصل الأكبر والرقيان النشرة وتشغيل الميزان إن القفة وتشغيل الميزان إن المعذرة والورود وإلى رحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما أتاك به من حسنة فتقبلهم وما أتاك به من شيء فتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه بركة ما تلوناه من كتابك العزيز أدية واسلة ورمة متصلة منك إلى روي عبادك محمد رسول الله وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت الناس مامور خريج سيسك وسيقنا وخليلنا وابينا وسبينا سيخ موسى سيسك وسيقنا الحاج كيبا سيسك وسيقنا سرين محمد فانا وسيقنا سرين محمد قم وأمتنا سونا جوكا فانا ولجامعة المسلمين اللهم اغفر لهم ورحمهم اللهم إن كانوا مسلمين فزد في أسانهم وإن كانوا مسلمين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم أرسل ثواب ذلك إليهم واجعل نور يسعى بين يديهم اللهم أكرم به مقامهم ويسر به نسابهم ودعم به ثوابهم واجعل رايك المقتول سرابهم اللهم انس ودتهم ورم صلبتهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا رب الراحمين يا رب العالمين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 docteur Aziz Mbodj ak docteur Serigne baara Gueye ak délégation bi ngeen àndal Serigne bi nee na wax dëgg yàlla xam na ne amu leen jot ak borom dekk bi nga xam ne nii moo jiite délégation boobu nee na mu ngi leen di balu àq ci toogaay bu yàgg bi xam na ne amu leen jot waaye dafa tombeek rek dafa buggu dafa bëggu ñii ñëw naan la sëriñ Mbimboudaay lii lay doxalee nii lay waxee te loola amut mu ne pour mu leer seen bopp rek xam na ne sax leer na seen bopp waaye mu gën a leer seen bopp waaye nee na mu ngi leen di jéggulu xam na ne yéen amu leen jot fenn waaye itam xam nañ ne bu bes bi demee ba tollu fii taaroo nii ak li fi xew ren nee na xam na ne yéen a ci jàpp euh, monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant biñ fa ñëwee sa adjoint lañ fa fekk mais lim ñu waxoon ci wàllu làmp yëpp remplir na lépp loo xam ne bëggoon nañ ko te ñaanoon ko ko ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm monsieur le fekkoon nañ fa sa adjoint moom itam engagement yi nga xam ne waxoon nañu ko ne incha boo ñëwee dana ci waxtaan ak yow lam ñu ci diggoon lépp gis nañ ko docteur yow itam ñu ngi lay sant bu baax gis nañ ne sa taxawaay fii ci mburaay booba yëf yi demewul nii mosoo ci dellu gannaaw say xale waa croix rouge ñu ngi fi taxaw taxawaay bu mucc ayib ak docteur yi jóge woon ba Kaolack ak feneen te bés bi rek tax leen a jóg nee na mu ngi leen di jéggulu léegi nag chef de village nee na nga dalal say gan yaa xam boo paree ci ndigalu kilifa gu mag gi nga xam ne muy monsieur le sous nee na moo xam moom mu ne yooyu docteur sax Dakar lañ jóge woon mu ne moo xam léegi monsieur le maire mooy waxtaan wa ilaa monsieur le sous yaay waxtaan nee na loo ci joxe ndigal ci loolu bàyyi na ko ci sa loxo waaye en tout cas lim leen téye fii nee na gënalu ko waaye bëgg rek ak ab cofel ci ak bëgg ngeen xam lan moo xew fii ci ay kanamu kilifaam nga xam ne téye na leen fi moo it da leen balu àq muy Cheikh Adama ak sëñ Modou Mamour ak njobootu daaru yëpp nee naa su boobaa chef de village nga ñëw dalal say gan te nee na mu ngi ñaan nag ñu gàttal ndax wax dëgg liñ fi wax yëpp dëgg la waaye nee na wax ji xaaw naa xabaabal ngir yéen bu doon ñunu kese mën nañ fi fanaan ba set waaye xam na ne yéen amu leen jot nee na ngeen baal ko àq ci loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu chef de village kon mbooloo mi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ci barke liñ jiiñ Furqaan Sabor ak bàcces ki mu sekkare gi tax ñu tànk tànk bi li ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ngaañ daaw fekke woon nañ ko fekkewaat ko ren ko ñu ngi santaat yàlla di ñaan yàlla yal nañ ko fekkewaat déwén di profiter de l'occasion di souhaiter mboolem sénégalais une bonne et heureuse année 2024 année année de succès et de réussite à nous tous plus particulièrement à monsieur le sous-préfet qui vient d'être affecté dans notre arrondissement sous-préfet bu bees bii sous-préfet ñu ngi lay dalal di dalal adjoint maire di dalal monsieur le maire au nom du village de Mougachère ñu ngi lay féliciter di ak kii nga def dans ce village ko ñu ngi lay koy gërëm maa waa Mbugaay kii mooy sous-préfet Mbaye Seck adjoint sous-préfet Ndiédiène Mbaye Seck adjoint sous-préfet Ndiédiène il vient d'être affecté même pas deux mois kon seen kilifa ngi ñu toog ci war nañ koo wone ñu wàcc ci suuf ñu ziare samay kilifa seetu la ñaan ñu ngi lay ziare di ñaan yàlla yàlla na yàlla may jàmm yàlla nañ fi Cheikh Aga ak waa Daaru salaamaaleykum wa rahmatulahi taala maa leen di ziare di leen di ñaanal yàgg fi lool gudd fan lool ki kuri Cheikh Souleymane ak waa Daaru kuri waa Mbulaay ñu ngi wax mboolem kuy gan li tubaab di wax soyez bienvenus dal leen ak jàmm te am jàmm. te su ngeen di ñibbi ngeen yóbbaale jàmm fekk jàmm te ku ñibbi yal na yokku ni njéeréer yokkee la yokkoo yal nga ba doon barke am ngeñal ci fa ngay àgg sa kër fekk ki koy may la doom ci yàlla te jeexalut te ñu ne ñaale yoo ko maa ngi koy ñaan yal ko def ci mboolem ku bi ñëw te juree Cheikh bi yal na am fi yàgg wér monsieur le sous-préfet Mbouga ngi nii bii mooy Mbougaay Séeréer le village de Mbougaay yaa gisal sa bopp de monsieur le maire moom bii la ko waxal gis gisal ngeen seen bopp donc tous les doléances biñ joxe ci CRD bi tey xam naa ne liñ waxoon ak liñ la jëmbatoon ak liñ xoolal kon lépp luy waxoon tey moom amatul wax seeti la kon ku seete soo demee war ngaa taxaw kon nag doléance bi fi mu nekk nii ñu ngi yoon bi bugg nga ñu defar ko dëkk bi il a fait partie des gros groupes du village nga am ci lii monsieur le maire monsieur le sous-préfet nga am ci lii taxaw nañ ci la. waaw ngeen taxaw ci xam nga Mboudaye ji c'est un village dans le monde waxu village dans l'arrondi dans le pays de c'est un village dans le monde boo xam ne fu nit jóge dikk dana jëriñu bési tey jii mboolem région Kaolack taalibe jóge na fi ñëw fii oto jóge na fa ñëw fii te yoon bi neexut te bugg nga ñu tali ko mbaa ñu laa naan boo ko amee su ëllëgee ku bugg a ñëw nga ñëw. may dégg sama bopp di dégg yi nga kenn deful dara deful kenn dara lu waay def boppam kon waa jooju war ngaa xool na bopp nga def ak lii nga def lu ko mooy pays gi. Muhammad kama wako mwenye wayangivi kikikaro gai leble wayangivi kikikaro gai fay bor te boyam borom bu jeex fu koo bi di fi gai fay muy i maa muy leble maa muy leb moo indi doom bi nga xam ne di ba leble ak ba jóge fii jëm Ndakaaru indi saaku ceeb ña fay ñaa sama yaay dee dee moom koo fay yaay dee laa lebel ngay fay fexeel mu mot taalibe nga jógee Dakar dikk bi ba ñu mu gaay ceer ñu xamal la ba mbokki laa ilaaha illallaah nga xam ne ku ko xam joojee àjjana nag dem eh boromam day góole ba loo xam ne la Cheikh Moussa waxoon ne jox lañ la foti ñaari boor kursu boo dem gagné soo gagné doo gëstu nga ñëw mu gaay bi jóge ca Dakar di ko gën taalibe ñu ne la puusal nga ni maa bay sëriñ bi bu mayee leen nga ni maa bay eh ñetti soo yore uh, uh, borom ceeni or war ka war dàqe ku amul ceeni or ci kër gi jox nga nga xam lii jox kenn matul laay laaral kuñ ko jox war ngaa mel ni kenn melut ci wàllu melokaan yëpp xam nga nii laa may yàggul dayo yàggul Sëriñ Tuubaa joxewul dayo Cheikh Moussa joxewul dayo nii laa mel yàggul xam nga lan moom yéen ñëpp jàmm jëpp jàmm ànd ak di jéyalaa bañ ku la mere bañ ku la sikk taale bi lii laay bëgg Thierno Mbengue kuy xëccoo doo fa noppaleku kuy fay du kuy tooñ doo yaram nag pay bés bii tey Cheikh Souley ñoom li doon koy liggéey ca pay ga ku ko fekkee kenn moom rek ngir mu am dara nga jëkk mu jaay ji nga fexe am dara ndax yow ngaa jaay kii kar te kii ba liggéey pay bi fekkee woo ko ba lii nga jëkk ci bésam bi bu am dara ah demal liggéey. cuelege ga bes moy fa tiitaro moy fa jajjaro besi jambur la oto jambur na ko gaale bo jiya kiran moña daw moña daw demal jël jël oto waaye ba mu jël oto dem la ko abal ma jël ka kaale bi yéen waa Mbuja yal ngeen may jàmm jël bi yal ngeen jël ci jëkk yi dama koy wax te waat ko rek te kañoom rek Mbuja yi ji kañoom rek sans plus tarder encore moo waat ko maa ngi remercier tous les services d'ordre ici présents monsieur le représentant du commandant de la gendarmerie ñu ngi leen di remercier di di yóbbante suñu nuyoo ci commandant mbay ñu ko waa Mbouguéne ñu ngi koy gërëm di koy remercier monsieur Bara suñ docteur bu baax bi nga xam moo fi indi croix rouge ñu ngi lay remercier yaa say personnel biñ fàtte suñ jigéen bi nga xam ne matu ñim méttee te koo gi bugg doon te ku ko ku ci toll jox ñu awa taxaw ak ay nitam kon ñu ngi leen gërëm di leen di sant ñu leen fàtte mukk soxna si ñu ngi yóbbante ci directeur RTS Kaolack ak personnel am soo demee ñeleen au nom du marabout du marabout de Moundiaye Séeréer et à tous les talibés ñu ko gërëm di ko sant di ko souhaité bonne heureuse année moom personnel nga ko wax soo ñëwee pour ma jeexal nag dinaa gërëm sama mbokki chef de village yi nga xam ne ñoo taxaw di xeex ngir avantage dëkk yi seen ambition mooy réussir réew mi ci dëkk yi ànd ak suñu adjoint suñu maire mu couvrir nu ànd ak sous préfet ak préfet ak département tey jii au nom de tous les chefs de mu Cheikh Souley Niane borom beeg yëpp ñu ngi laaj gërëm di lay sant di ma jox seen ziare mais su ma dikkee ñaa leen ko ziare nga xam ne ca communiqué bi nga xam ne da nga koo communiqué dugg dëkk yëpp dëkk boo tudd imam ba borom dëkk ba suñ dikkee suñ dikku seen yóbbante ci wàllu nuyoo ak ziare jox ngay ma ko maa nga koy jot lii asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala di ñaan fekk jël wér ak wér mu ci ñu ngi lay nuyu bu baax. di la ziyaara di la ndokkeel ci bés bu mag bi nga xamante ne ni yow yaa ko may waa commune u Ndiédiène bés bi taaru na rafet na jeetaay bi neex na rëccuñu tamit nag liñ fi toogee boobu léegi bu ñu ñëwoon ñu dem fekkewuñ jukki arxuraan yi fi xale yi def fekkewuñ xatmul xuraan bi ñu fi def bu boobaa nag dañu dañuy perte te loolu nag ñu ciy sant yàlla bu baax te jël ci gërëm te di la ñaanal ñu ngi nuyu gan yëpp. di nuyu cheikh yi nga xamante ni ñoo fi ñëw di nuyu waa daaru sëriñ bi sëñ aada bi leen fi teewal di nuyu mbokk yëpp ñu ngi nuyu bu baax chef de village accueil bi rafet na kontaan nañ bu baax comité d'organisation si ñu leen di nuyu di leen di gërëm ñu ngi ànd ak sous-préfet adjoint sous-préfet Mbaye Seck di gërëm bu baax disponibilité am ak service technique bi Baara ICP ak sage-femme Awa Ndiaye ak CADL euh, madame Seck ñu ngi ànd ak sama chef de moo du Sène donc euh, ak euh, sama collaborateur sama conseiller Guirane Ndiaye ñoom lañu àndal donc ñëw fii pour fekkee si bés bu màgg bi nga xamante ne nii dëgg dëgg dëgg bés gënu koo taaru ñu ngi ñaan yëlëpp li nga xamante ne nii ñaan nañ ko fi te xam nañ ne dina nangu parce que sangu suley la donc yal na ko yàlla nangu te barkel ko ñu ngi ñaan fekke ko déwén ak déwén yu bëree bëree bëree bare bëri ah nee nañ gërëm nañu ci liñ fi def li ñu jàpp mooy ko suñu waree rek la ñuy def parce que ñun ñooy meeru gox bi bañ fi ñëwee ba léegi événement yi bu ñëwee dañuy organiser wu am ko calendrier chef de cabinet day organiser calendrier bi événement bu ñëw ñu ñu ne début de semaine ñu ne ñu semaine bi lii ak lii moo fi xew ñu jël suñu matuwaay def li nga xamante moo ñëw ci war ren Mboudaay am na CLD waaye li ma jàpp yi tamit nag dafa yéex lool parce que CLD dañ ko doon def comme bu bu bu Taïba Niangène def nañ ko ci le 17 février lay ñëw au moins ñoom am nañ un mois et quelque Mboudaay bi ñu def CLD bi daanaka li des ci gàmmu gi matul di jours arrêté bi muy génn daanaka semaine moom moo ci des donc justoon na lool pour ñu mobiliser li nga xamante ne ni ci wërsëg la xam naa ak barke sëriñ bi. moom moo tax sax yenn yi mat waaye jàpp nañ ne am na lu bëri UCG waroon na fi mën a ñëw nettoyer dëkk bi service d'hygiène waroon na mën a ñëw waroon nañ mën a defar yoon yi mais yooyu bu nekkee CLD bi teel na te ñu ngi ñaan déwén su préfet déwén faw mu teel au moins un mois avant l'événement ñu def CLD bi jël matukaay yi nga xamante war na donc pour njëf ko bu ñu engagé wu politique fii ci gox bi mooy que li ñu mës a wax mooy que pour li ñuy soxla duñ ko dem di ko jéggaani duñ dem seeti directeur fenn duñ dem seeti ministre fenn dañoo bëgg fii doomu Ndiédiène sëriñ bi ñaanal ñu ko doomu Ndiédiène yi bokk ci ministre ci réew mi bokk ci directeur général réew mi donc ba lépp loo xam ne soxla nañ ko mooy yoon yi ñuy jabat ñu fi jaar xam naa ne yoon bi métti na waaye loolu ñun bu ñu jegee responsable politique gu Ndiédiène bu ñu jegee daañ ko defal suñu bopp parce que boo demee di ko ut ci responsable boo xam ne soxla na ko wala benn goxam soxla na ko yaakaar naa du la ko gaaw a jox loolu nag sëriñ bi ñu ngi koy dénk ñaanal ñu donc ba Ndiédiène séddu ci li nga xamante ni parce que Ndiédiène yàgg na lool lool lool lool ci toppe ci politique yàgg na lool ci fee sax meeting meeting wu yi loolu nag mooy li nga xam bi ñu engagé politique loolu moom moo tax loolu moo tax loolu lañ bëgg a dindi fii ci Ndiédiène pour may ko autonomie ñu mënal suñu bopp ci lu bëree bëree bëri li nga xamante ne soxla nañ ko pour askan wi parce que jàmbat yi bëri na soxla yi bëri na waaye nag li koy faj yëpp mooy que Ndiédiène am fu mu yegg turu Ndiédiène am fu mu yegg boo ñi nekk Ndiédiène am possibilité am yenn pouvoir fekk soit ñu nga conseil des ministres wala ñu nga ci ci direction yi loolu rek rek rek moom moo koy moom moo koy def donc ñu ngi lay dénk suñu bopp di la dénk si li nga xam ne suñu programme yi da nga ambition yi bëri na donc Mboudaay mënuñ ko fàtte parce que Mboudaay village historique la yaakaar naa ne programme bi ñuy wàcc ci culture xam naa daan ñëw waxtaan ci ak yow parce que ñu ngi ko tuddee retour aux origines de la fondation du royaume du loolu ñëpp xam nañ ko xam nañu ne ki nga xamante ni moom moo jur buur Saalum Mbégaan bi sos Saalum fii la waajuram dëkk loolu nag ñu ngi ciy liggéey ak buur Saalum Thierno Ndaw ñu ngi ciy liggéey ak ay ñoo xam ne ay historien lañ pour événement boobu ñu ñëw def ko fii parce que parce que culture bi ñu mën a li ci ñi commune Ndiédiène mun na am ci bénéfice lii li ñun nga ñun nga koy defal waaye Ndiédiène tamit su mbudaay suñu alal la donc rayonnement Ndiédiène kese lañ ci am te loolu nag suñu bénéfice la te ñu ngi ciy sant yàlla bu baax te di leen di yëgal ci loolu te bu boobaa bu yegsee ñu ngi ñaan ñëpp jàpp ci donc sëriñ bi di la ñaanal yal na yàlla bàyyi la fi yal na yàlla yàggal la fi yal na yàlla dëgëral la donc ñu ngi ñaanal ñëpp ñi nga xamante ñëw nañ fi ñoom ñëpp yal na may leen retour bu bu baax waaye te nangu ñaan yi donc boo ñu fekkee ko déwén ak déwén yu bëree bëree bëri jërë ngeen jëf jërëjëf monsieur maire sa kaddu asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh euh, Serigne Cheikh su ñaan ñu lay nuyu euh, di la nuyu di nuyu sa waa njaboot di nuyu taalibe yi fi teew yëpp di nuyu say jëwriñ ak say cheikh euh, di nuyu mbokk jullit yi fi jóge yi fi teew jóge ci gox yu fasantikoo yi te bis bi indi leen di bisu jàmm di bisu lislaam Euh, nuyu bi nag dama la koy nuyu ci sama tur mais di la ko nuyu aussi ci turu su préfet Babacar Kébé euh, waroon fi ñëw teew waaye yàlla def ren ak tey événement yu bëri xew euh, mu jaar nii ma jaar na mais yéeneem moo doon ñëw bokk ak yéen bis bi ñu dund ko ci gën gi anam mais jàpp naa ne suma ñëwee mel na ne ñëwal naa ko te xëy na war naa ko war a mate ma di ci sant yàlla bu baax nag ndax euh, bis bi amaana am na ñu ko teewe woon daaw nekkuñu fi seen ñàkk fi nekk du seen du seen yaafus ci coobare yàlla la ñun ñi fi teew it euh, ci kàttanu yàlla dañ ko war a sante yàlla parce que suñu fi teew du suñu ngóoro mais xëy na yàlla moo ko dogal euh, ñu di ci sant yàlla encore une fois bu baax a baax a baax di la nuyu sëriñ bi di la jërëjëfal en tout cas di rafetlu lépp liñ fi gis ak waxtaan wi nga xam ne dégg nañ ko fi biñ ñëwee ba léegi euh, sant yàlla bi daf ñu war ñun autorité administrative parce que damay faral di wax ne autorité administrative bu ci gën a en tout cas bu ci gën a nekk à l'aise mooy ki nga xam ne ci biir goxam moo xam arrondissement am la moo xam département la daf ci am ay këru diine yu bari euh, loolu nag su ma ko waxee nit mar ko mën a comprendre ndax ci kër diine yi ci la ñuy defaroo te njaboot gi suñu defaroo rek sous-préfet bi wala préfet bi dafay dafay dafay noppalu ndax euh, comme jàmm lañ ko wax mu sàmm ko ci biir circonscription administrative am mais su ci amee ñu nga xam ne dañoo yaru dañoo tarbiyu dañoo dañoo dañoo tegu ci yoon euh, loolu ngëneel rek lay nekk ci moom kon euh, dañuy sant yàlla bu baax bi ñu amee dëkk bu mel nii ci suñu biir arrondissement sëñ bi ñëw fi nag ànd fekk délégation Euh, wax monsieur le maire jarul ma ci jaar euh, ñëw na ci léegi euh, moom ci la bokk ginnaaw bu ma ko jiitee ñu ànd ci aussi ak CADL CADL lañ doon wax bu njëkk waaye tur bi na léegi. Mm-hmm. mais ñu jàpp rek ne madame Seck la. Mm-hmm. lépp lu nga xam ne ci wàllum développement la. en tout cas moom la yàlla def mu nekkal ko ci ci arrondissement bi di ci taxawal. ñu ànd ci aussi ak ICP donc Bara Gueye. defe naa ñëpp xam nañ ko ci kër gi jarul ma ci jaar. Hmm. ànd ci ak sage-femme bi madame madame madame Ndiaye. Euh, ànd ci aussi ak collaborateur maire yëpp. Euh, ñun nag suñu ñëwee ñëw ci turu su préfet mel na ne ñëw nañ ci turu préfet du département. Hmm. te loolu su amee donc mel na ne ñëw nañ ci turu gouverneur ñëw nañ ci turu ministre de l'intérieur ñëw nañ aussi ci turu gouvernement bi yëpp ak turu président de la République euh, suñu teewaay fii warul jaaxal kenn ndax. Euh, ku ne kuy déglu en tout rajo wala ngay seetaan télé gis nga taxawaay bi nga xam ne gouvernement bi am na ko ci këru diine yi ak si ak ak kilifa diine yi ci ay jëf ci ay tabax euh, ci ay fekk si leen ci su seen i bis euh, di ci def lu mat sëkk loolu nag su amee ñun ñu nekk ci bopp arrondissement bi yoon la ci effectivement ñu ñëw fekk si leen da ko warul jaaxal kenn seeni i yitte dafa war a nekk suñu yitte looloo tax bi CRD jotee def nañ ko c'est vrai que monsieur le ñu wax dëgg la xaw nañ ko yéex a def mais incha allah euh, jël nañ bu baax note jàpp nañ ne en tout cas l'année prochaine dinañ ko teel a def pour que lépp lu nga xam ne service yi dañ ko war a taxawee mais ñu teel cee ñu teel cee jóg mais mais ñuy sant yàlla nag ci li nga xam ne vraiment jot na am euh, te ñu instruiroon suñuy su suñuy service ñu def ci liñ ci mën donte am na lu des euh, mais jàpp nañ ne xëy na comme première édition la édition yi leen di ñëw en tout ci def lu ñu en tout cas suñu kéemte lay kat may sant yàlla sant yàlla bi euh, ci waxtaan wi soxeekoo ci bis bi ci lay sant yàlla ndax waxtaan bu am solo la bu nga xam ne def naa lu ci bari donte ci sëñ bi la la la soqeekoo ci jëmam lu jëm mais jëm na aussi ci taalibe yi euh, sëñ bi njëkk a def conférence bi léegi ñëw na ci ñaari anam yu nga xam ne lu ma intéressé la jëm ci taalibe yi mooy tarbiyu bi su fekkee ne dañuy tarbiyu dafay war a am njeexital ci comportement yi lu am solo la taalibe dañ ko war a xàmmee wala ñu ràññatle ko ak kudu taalibe ci jëfin ci taxawaay ci matee ko ba nga xam ne eh, lépp lu nga xam ne daal modèle de droiture la li ko tubaab di waxee dañ ko war a gis ci moom eh, loolu nag li ñu wax ci sëñ bi defe naa ne dafa war a di feeñ ci taalibe yi loolu bokk na ci li ma di ñaar euh, xisa bi ma ci bëggoon di rek mooy euh, ci jëmmi jamono te li may wax nii 2004 la woon benn ci këru diine yi euh, ci dëkk bu nga xam ne jarul ma koy tudd waaye dëkk bu nga xam ne la woon ci ci jamono tolloon na fu nga xam ne te ba léegi sax mooy continuer rek mhm. en 2004 ci bokkoon na ci juróom-ñaari dëkk yi nga xam ne ci rëyaay ci ci ci wàllu maanaa Euh, ci ci ci développement tolloon na fu nga xam ne euh, am na benn conférence bu ñu defoon Genève en 2004 ñu invité woon ci ki nga xam ne moo doon taawu sëriñ bi di Brad Brown di di porte-parole ñu laaj ko lan mooy secret dëkk boobu. évidemment am na lu bëri lu mu ci indi woon mais mu jukki ci rek ñett bi ci njëkk mu ne topp bokk na ci lii kat dëkk bi kuy bàyyi di bàyyi kuy mag di mag. ku yaay di yaay kuy taalibe di taalibe ku sëriñ di sëriñ loolu dafa am solo ci ci ci dundin ñaareel bi mu ne Pastef dëkk bu bëri Pastef la Pastef nag mooy loo nekk nekk nga ci loo nekkul nekkoo ci ñetteel ba ma ci mooy liggéey kon mu mel ne ñett yooyu dëkk bu ko boolee am nañ yaakaar ci ne mën ngaa toog ba mel ne dëkk boobu incha man nag ci suma donte maa ngi doog a ñëw waaye jàpp naa ne loolu mën nañ ko gis ci Moulay gis naa fi gis naa fi ak Pastef parce que li fi nekk ci mbooloo wallahi wane leen ne nekk dëkk bi am na Pastef euh, Pastef foo ko gis rek liggéey am na fa mm-hmm. waaw kon jàpp naa ne aussi dëkku liggéey la te dëkk bu nga xam ne la aussi gidd bi fi nekk def na ci taalibe yi li ma foog ne war na toppante war na cee mën a am kon ñu am yaakaar bu baax ci ci Moulay Seereer en tout cas man def naa ko dëkk bis ni ki tey incha allah euh, lépp lu nga xam ne ay doléance la euh, luñ ci mën di taxaw danañ ko taxaw dañ ko taxawee wax nañ fi léegi yoon bi am na lu ci monsieur wax euh, ñun aussi ci wàllu administration luñ ci mën a bind wala ñu def ko ci dinañ ko ci def ba nga xam ne amaana suñ fi ñëwatee doonte amuñu yoonu mbéggal yi waaye en tout nit daal dina ci jaar te du am jafe-jafe yàlla ñu ci yàlla jàppale leneen li ci des rek sëriñ bi mooy ñaanal ko mm-hmm. ndax mu yàgg fii suñu sag la suñu sag la suñu kiiraange la ñun autorité administrative parce que wax naa ko léegi suma njëlbeen wax ku la ci ëpp ay ay kilifa diine rek moo la gën a nekk à kon yàlla na fi yàgg lool ci moom eh, lépp lu mu fi def ci ci gox bi aussi yàlla na ko yàlla ful ah, ba mu nekk ay ngëneen ci biir arrondissement bi eh, leneen li ci des rek aussi mooy ñaax vraiment population bi eh, ci jamono yi ñu toll lakk gi ñuy commencé di bëri ci dëkk bi loolu dama bëggoon vraiment ñu bàyyi ci xel lépp lu nga xam ne daal jàpp nañ ne euh, mën na indi ay lakk ci biir dëkk bi vraiment ñu fonk euh, loolu loolu am na solo euh, ba nga xam ne xëy na dootuñu yuuxoo ci fenn ne bërëb ndàngam wala bërëb ndàngam mi ngi lakk loolu bëggoon naa ko balaa may tënk vraiment ma ma yeggee ko population bi ñu bàyyi ci xel bu baax leneen li ci des rek mooy vraiment di leen indil jërëjëfal sous-préfet mm-hmm. di wax ne euh, mbudaay daal suñu mbudaay la ci gàttal. Euh, lépp lu nga xam ne daal en tout cas bi soxla na ko incha allahu rabi dinañ ci taxaw comme ni mu ci taxawee ci yeneen ci yeneen dëkk yi. Euh, di ko ñaan mu ñaanal aussi Sénégal. ñu ngi dëgmal élection yi. def naa le 25 février yëpp xam nañ ko dañu war def élection présidentielle. bëgg nañ mu def ci ñaan. ba nga xam ne ñu dañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah am nañ ci yaakaar li mu li mu làmbool pour ma ciy jaar ñi ko gën a jege ñi namtalu ci moom wax nañ du bëri ci moom loolu rek nag doy na doy na doy na doy na doy na junni ñu ngi koy ñaan mu ñaan ba nga xam ne élection yi dañ ci dugg ci bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah te loolu daal sëriñ bi ci gàttal moom laa ci bëggoon a sànni encore une fois di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan ni ñu fi ñëwee fekkee bis bi ci jàmm yàlla nañu fi dellusiwaat déwén incha allah fekk fii fekk fii fekk fii jàmm euh, vraiment yàlla yokk xéwal yi bu baax a baax a baax ah, euh, ba nga xam ne daal suñ fi ñëwatee daal yenn problème yi dootul amati incha allah parce que dañuy fekk lépp rek yow asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin alamin euh, mbokki mbudaay mbokki tund bi mbokki réew mi yëpp li ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sous chef de villa maire bi docteur bi ku góor kii ak ku jigéen ki ak ñi ñu àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax lii li tax ñu defee ko nii bu ñu bari duñ mën a wax moom liggéeyam bi mu fi liggéey dañ ñoo rek pour ndokkeel leen sargal leen yaaramal leen ci liggéey boobu ndax nit it su la defalee lu baax war nga ko wax donte wax nañ ko seeni liggéey rafet na trop lépp loo xam ne waxoon ngeen ko suñuy ndaw wax dëgg yàlla def ngeen ko sant nañ leen gërëm nañ leen eh, fii nag nit ku nekk soo ooyee ay nit bañ ñëw rawatina ki nga xam ne mooy kilifa ci arrondissement bi ñoom ñaar ñépp ñu ñëw toog rafet na nag nga donte dégg nga ca dara mu tudd itam tuuti pour nit ñi xam mbir mi lan la monsieur le dafa am mbir moo xam ne jamono dañ koo réere ñii xam ko ñii xamuñ ko mu yaatu trop te yàlla defal ci Sénégal loo xam ne Sénégal buñ ko xamoon rek avancement ñu bugg yàlla defal leen ko nu mu gën a gaawee ñu noppaleku xam nga tey coow li yëpp lenn rekk la nit ñi dañu xam ba pare yàlla wàccee leen ci àdduna yàlla leen xamal wàccee leen ci àdduna tuddee leen fàttekat yi insaan fàttekat yi ñi ñëw ci àdduna kenn ku nekk ne dama tukki si te yéen suñ waxee lu ngeen tukki si da ngeen wax ne dañ demoon ci jàng mbudaay damaa tukki damaa demoon jàng sàng wala tukki sàng wala ngente wala ceeb léegi nag ñun dañ tukki si ci àdduna mais pour nga mën a laal ne lii moo tax ñu tukki si loolu mooy problème bi te loolu buñ ko laaloon rek xale yëpp baax mag ñëpp bëgganti ñëpp juboo fitna jeex takk ci àdduna bi ñëpp am jàmm ñu ubbi bitig yi weleng leen te kenn du sàcc kenn du jël dara yi kenn loola nag yàlla daf koo joxoon cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba mu yor ko ci di dimbale àdduna bi mu dekk fan sénégal tax ñi jàng ba pare laxas ak seen njàng fekk si sëriñ tubaa xanaa kon mbir mi du njàng te jàng ba pare dem fekk sëriñ tubaa ku mel ni ma jaaw paxa dafa jeexaloon téere bi ñi ku mel ni ma ñaaw silla dafa jeexaloon téere dem fekk sëriñ tubaa xam nga nit dafay dem ak xelam xanaa du jàng xam jullee koor ak génn asaka ñoo tax xanaa du loolu ñoom xam nañ ko ba pare nekk ci ay imaam lan moo tax ñu fekk Sëriñ Tuubaa lan la jàng ba pare xam ni ngay jullee ni ngay wooree yépp nga ni ko xasis nga war bëccëgu dem jébbalu tiwaawoo lan moo tax xanaa du jullee koor xam nga ko ba pare lan moo tax nga dem jébbalu lan moo tax nit ki jàng ba pare dem sookoon jébbalu lu tax nit ki jàng ba pare dem Medina Baay Ñas naar yi jóge ko ci réewu gànnaar ànd ak seen téere yi dootoo wax jàng jàngaleen indi Medina ñu ñëw Medina lu tax ñii jàng ba pare di ñëw Sénégal liñ ut si lan gis nga loolu su ko réew mi xamoon réew mi yëpp noppaleku ñëpp mucc te kenn dootul am bakkaar day dugg aljanna lay jox loolu nag la yàlla jox Cheikh Moussa mu ne du man maa ko yor man rek sëñ Tuubaa moom la yoroon imaamu lay moom la yoroon nit ñu baax ñi ci Sénégal yépp ku ne mu ne ama amoon mbokk te loolu soo waxee ñu ne loolu xam-xamu xale yi la xam ñii seen mbir la du suñ mbir du mbiru borom daal mbiru ñëpp la kenn ku nekk bi ngay ñëwaat ci àdduna xam nga yàlla ci yow ma alas ko na yàllaa ne bind ba pare sotti ruuy ci kanamam ne leen ndax nekkuma seen borom ruuy ne ko anka yow yàlla yaay suñu borom kon xam nañ yàlla avant yàlla bindagul asamaan ak suuf ñu ñëw ci kaw suuf nag léegi léegi nag ñu de bu xamaat loola nan yàlla na ñu fàttaliku leen ma fàttaliku loo xamoon lay doon looloo tax naar yi dañu ñëw ci Sëñ Tuubaa pour fàttali ko loolu tax ñu ñëw ci Alaaji Maalik loolu tax ñu ñëw ci euh, euh, Baay Ñas looloo tax ñu ñëw ci Cheikh Moussa loolu nag laa doon na ci Cheikh saa indi ko ci mbudaay gii tasaare ko ci adduna bi ku ko jot mucc ku ko jot raw ku ko jot texe ku ko jot doo jot mettit ak bàmmeel siiw na lool sous-préfet ñu ne sëriñ mënta yóbbu nit aljanna wax bi dafa siiw waaye saxut siiw na waaye saxut yomal xiyaam bala ñu jëm suñ demee ba mbooloo mi def nii ñu def man koy wax di ko waxaat nii ñu def nii yàlla nee na yow miy bañ sëriñ doo dem yàlla nee na kenn ku nekk ci sa turu sëriñ laa lay oo yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim kenn ku nekk dinaa la woo ci sa turu njiit ne yow njiit gi loo àndewoon ak ñii mu ne dama leen xamal xamaloon yàlla dama leen wonoon yàlla ah yéen lu ngeen àndewoon ak moom daf ñu xamal yàlla daf ñu wonoon yàlla mu ne jël leen seen ndeyjoor tey jël seen téere ànd ak moom dem aljanna kon nekk sëriñ bi ngay àndal nga dugg aljanna mu ne yow loo àndee woon ak ñii mu ne man de sama askan laa leen woonoon ah moom nga àndee woon ak ñii yàllaay wax de te su nekkoon hadiis yenente am mais aaya alquran la yéen lu ngeen àndee woon ak moom ah wax dëgg yàlla askanam la ñu wonoon mu ne ngeen poñeexante kenn ku nekk wax sa yaa ma waxoon maa la waxoon mu ne tey nag jël leen seen càmm jël seen du ngeen xam dara ci seen téere dem leen ci kër gu tàng gala ngeen dem fa lii yàlla waxut ko sëriñ ku dugg aljanna sëriñ moo la fa yóbbu ci aaya alquran bii laa wax waaye ñun dañ xamul lan mooy sëriñ sëriñ mooy ku la jox ci loxo bu ne la yàllaa ngi nii te gis nga nit ki jaamu yàlla ragal yàlla xam yàlla mooy dayo ba gis nga nit ñi xam yàlla am toll jaamu yàlla am noonu la toll ñu jaamu yàlla am toll noonu la ragal yàlla am toll gis ngeen ñii millions yi nit suñ fi nekkoon benn takkadeer nekkul fii nii ñu def comme xar rek dañuy def comme xar ndax ki ñuy gis ko ko gis ku ko gis wekk ko yàlla dañ ko ragal comme ni ñuy ragalee jaam mais dañ koy wekk parce que li nga gis jàkkaloogu moom dëgg-dëgg da koy wekk lii laa leen indil ci biir seen arrondissement ci fii département tibbee ko daaru bi indi ko ci seen biir koo xam ci te yàlla ñu digal nag ut leen wasila yéen ñi gëm yàlla la wax loolu nag gaa yi dégguñ ko xam nga ñi gëm yàlla mooy ñan mooy ñuy julli de woor di gën a askan di aj màkk ñooñu la yàlla ne yéen uuti leen wasila lépp di teg te ngeen ragal yàlla te nit mën nga di julli di wóor di gën a doo ragal yàlla ragal yàlla mooy wéet def lu baax wettale ko def lu baax mu ne ñi àgg ci dayo boobu nañ uuti ku leen indi ba ngeen agsi ci man yàlla gën te nekk béréb ci béréb béréb bu nekk mu nga fa waaye dafa am béréb bu mu feeñ tey nag yàlla jox nañu ko for nañ ko ca daaru kër Mamadou Xodé ji mu tukkee ci Cheikh Moussa ku ñëw ñu jox la nga baax adduna baax àllaaxira loolu lay yor nga mu ci àdduna mu ci àllaaxira asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen cheikh yi incha allah ci kanam tuuti suñu ngeen dellu siyaat na ngeen ko defee woon ngeen defee ko ngeen def 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes ku nekk jël di minutes sant naa leen gërëm naa leen maire jëf dëkk bi leer na nañ ndox mi liñ waxoon def ngeen ngeen ci waxoon def ngeen ko lépp daal wax dëgg yàlla mat na sëkk ñun lii lañ bëggoon def ko te emu ci kat mu toog nii bim toogee. dafa ne man suma ma weer ci mairie bi duma ko jëriñoo wala ci beneen anam laa koy jëriñoo yàlla laa koy jox yéen sëñ daara yéen laa koy jox loolu la def mair bi waaw waaw bi mu defee fàttali ne ma sax élection yi wax la bi loolu amee këru diina bu nekk dugal na fa dara te ñu ne ma sax dafa waxoon ne beneen xalaat la bëggoon seet benn këru diina rek benn daara rek mu def fa dara loo xam ne loolu dafay saxati faw ñu ne ko deet masala la bu ku nekk rek ñu xam ne li waxoon def nga ko kon nag ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay njaarama parce que nit su defee lu baax da nga koy won def ko lu baax président de la république it recensé na sëriñ si lu mës ta am ci Sénégal def na ko tey bit bu ñu wootee defal ko alquran xale yi di jongante màkk lañ ko daan gis wala feneen wala nit am xaalis def ko waaye jël ko ci bit say réew defal ko sa doomu dëkk def nga lu baax nit nag su defee lu baax da ngay xam ne diw def nga lu baax ko wax l'islam nag ku ko defal lu baax mu tagg la kañ la sant la lii la def sant nañ ko gërëm nañ ko ngërmaande goo xam ne amul am lii la def wala voté yi nag kenn ku nekk na def kartaam téye ko mu nekk yaram ak teggiinam su bés ba jotee kenn ku nekk na seet ka ko doy mu dox ndànk ànd ak yar ak teggiin dugal ko ndànk fam koy dugal walbati ko delluwaat ca karam te bu mu am benn minute ci foofu mu nekk delluwaat ci liggéeyam dem liggéey kay yàlla jox mbir mi yàlla jox ko mbir mi ñun ñëpp ñu bokk ñaanaat ci barke suñu mag ñi fi nekk ñu walbati ko dem liggéey nañ nekk ci lii ku ko def mucc nga ku ko def raw nga mag ñi lii la ñu baal kenn ku nekk su bees ba jotee yaa xam arrondissement boo ne yaa xam dëkk boo ne la nga war a def demal def ko walbati ko aw sa yoon delluwaat ñu xaar li yàlla da def yàlla def ko ku nekk am ndam ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp bokk ndey bokk baay nag xuloo du ko yàq kon nag nañu bëggante jàppante ngir jëmi yàlla yàlla pare na te man dem naa ci réew moo xam ne ah ñu baax lañ de Maroc ñemewoo sax ñi toog nga ne président bi nangam kenn ñemewu ko Barba Diaw ma kenn kenn ñemewu ko man de li ma gis Sénégal Sénégal laa ko gis kenn ñemewu ko kenn moom kay li waaye tubaab yi ñoo baax ñun ñoo ñëw ci lislaam waaye tubaab yi ñooy doxal lislaam réew mi ku ko soxla xam nga lu muy wax lii laay doxalee réew mi nii laa koy doxalee programme bi laa koy doxalee nit ñi de noté rek su leen doyee ñu defal la su leen doyee ñu bàyyi la pourtant loolu la lislaam santaane ku gëm yàlla gëm yonent da nga wax lu baax wala nga noppi assis déglu naa ko rek dama koy déglu rek da ko déglu rek da ko déglu rek da ko déglu rek ma ne kii nit ku baax la nit ku baax la xam na doxalin su xamu doon doxalin toj na kar bu yàgg ñàkk fi mu toog waaye nit ku dal la nit ku baax la loolu mooy xam yoon Macky Sall su defu doon dal googu doo agsi fi mu agsi yéen président du caaxaan de Abdoulaye Wade xiiru na ko xiiru bu ne waaye mu tëj gémmiñam rek noppi rek noppi rek bu yàlla jox ko lim koy jox kilifa duñ ko yab soo ko yabee am problème de te tuyu kaay rek kaay rek ci biir sa kër ci biir sa kër rek ñëw fi rek saaga borom kër gi def ko rek dangay am jafe-jafe man daal li nga xam ne moom laa gëm tey te moom laa gëm ëllëg jigéen sox dama la wax dangay fen man déedéet yàllaa wax yonent bi salaal wasalaam ci hadis ku gëm yàlla gëm bis pinc na nga wax lu baax wala nga noppi su fekkee xam-xam ngay jëfandikoo na waxal lu baax wala nga noppi ku dul yërëm nit ñi yàlla du la yërëm nañ yërëm ñépp dimbalante ngir yàlla dugal sa carte dem ñibbi woto yi moom awma lenn lu ma ciy wax nit loo doon dugalal sa carte aw sa yoon dem ñibbi résultat ya ku ko yàlla jox ñu xam ne yàlla jox na ko asalaamaaleykum wa rahmatullah